والقلم وما يسطرون بسم الله gi nu ko def mu jëm ci ab soññ ci bokki daara yi ñëpp ñu gën a delloowaat sunu yitte ci mbindum alquran ni ko jataay bi sakkoo bismillahi rahmaani ma del si tey soññ daaray réew mi ndax ñu sawar tey soññ ñuy wattu ndax ñuy bind mbind mu wér ma si tey soññ daaray réew mi ndax ñu sawar te soññ ñuy wattu ndax ñuy bind bind mu wér bu dul ko nag wattu xam-xam sànku kenn du ca jot bu dul ko nag bind mboolem mbir yi day mujj far ku jàng noonu xam ne yàlla jëkk bind xasal ngir xalima ak xalluway maxfuus yu tedd la yor bu yàlla sax xalimaam googee la jëkk a xamal xadis ba loo lii la wax lii doy na lay wu dëhër malaaka yëm binduloo sun jëf yi ñoo di bii kaatibiina yëral gaa yooye ñoo rëyi tur la tax ñu naa kaamil osmaanu moo mat a xam su binduloon alxuraan duñ dégg woowale tur ñan jàppewoon woon ca badar boobee te xamti ñu lëf ci bind lan doon jotoo foofee ba xëy defi gor yonent ne leen ku ci jàngal bind benn xaleel su mokkalee moo di sax njot wóor na gaa yi ba dar nan dellu sat xat yi mbaa sax jëmb mbaa te seleen delloo siwaat ndëpp yëg njengal yu jekkite xor nan soo si daa jambu def daakaande segg te jël sun xalluwaay beqi sàlloo bind doy na na far sëñ jëmbu sëñ xaami dunloo seeni tur du fi jóg seen bind maa tax ñu des fii daagu dootuñu far alxatu yabqa zamanan bi kaatibihi mokkal te doo bind kaamil xaw ma lëf lu ko jar alxattu yabqa zamanan baada bi mokkal te doo bindi kaamil xaw ma lëf lu ko jar concours mbindam alxuraan yaatal ko bam la walaw la C3S di baaxoo woote bis la bu ñor géew baa ngi nii samp nañ koy at te ñépp la woo neexal yu doon yaa nga fay xaar waaju jiitu bu wér te saxlawul bokk fii mbaa ku jekk na ñëw way maa du yay xatte duñ seet foo bawoog fa nga far murit yi xaadir yi ak tiijaan yi ak ñi yorul yi wirdi ñépp a ci yem kuy bind am nga fa cër na yàlla buur dolli jàmm ak xéewal ak gudd fan suñ bàyyi sëriñ sekk faw personnel bi ko wër asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu